jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu ngeen di teewlu mur TV ni ko ànde woon ak yéen ci information bu am solo bi nga xam ne ni démb ba tey ñu ngi leen koy toppal muy ñaari doomi Sénégal yi nga xam ne ni dañoo jël ay ndam yu am solo ci jonganteb alxuraan bi nga xam ne ni mboolem àdduna wërngal kàpp ñu ngi ko doon amal foofee ca Malaisie muy Serigne Mouhamadou Diallo ak soxna maam Diarra soxna maam Diarra Ngom moom nga xam ne nag moo jël ñetteelu place bi foofee ca Malaisie ñibbisi na nag tey ji ci Sénégal rawatina nag ci dëkk bu tedd bi di Touba ak ci dëkk bu tedd bi di Touba nekk na mbégte ci mbooleem ñi nga xam ni ñoo di ñooñu alxuraan ci teewaayu kuréel bi nga xam ne nii mooy lëkkale mbooleem jàngalkate alxuraan yi fii ci Touba ay waajuram ak ay soppeem ak ay indi jàmmam teeru nañ ko teeru bu am solo biñ ko teeroo ba dalal ko ci kër Serigne gi nekk ci Daaru Manaan kàddu yu am solo yii la yëkkati. juddoo Touba yaroo Touba màggee Touba Touba laa jànge ba moo ko alxuraanu karim sama papa moom ma jàngal waaw booy doog a dem dafa am benn test buñ lay testé buñ la testé bu fekkente ne mën na mën ngaa bokk ci concours bi dañ lay jox ay neexal yoo xam ne da wane ne mën ngaa bokk ci concours bi léegi nag bu fekkente ne mënoo bokk ci concours bi kenn du la boole ci ñooñu ñuy jox neexal yi buñ demee ba joxee neexal yi ba pare ci altine ji ci altine ci suba gi moom lañ commencé def ki altine ci guddi moom lañ commencé def musaabaqa te musaabaqa bi ñaari kii la ñaari faran mooy ñaari xaaj la dafa am xaaj ñoo xamante ne si tilaawa la ñuy jàng nga xam dañuy jàng di xool am ñoo xamante ne si xifz la ñuy jàng nga xam dañuy jàng di mokkal mokkal bi noonu rek la ñuy jàng commencé euh, kii bi xifz bi nag mi ngi tàmbalee ci altine ci guddi faran tilaawa bi laa bëgg a wax moo ngi tàmbalee ci altine ci guddi altine ci guddi ñu jël fukki nit talata ci suba ñu jël fukki nit ci faron xibdu allah ba ci suba ñu jël fukki nit talata ci guddi ñu jël fukki nit ci faron euh, tilaaw bi lañ ko continuer ba ba ba ñi ba khamis ba khamis ci guddi la musa bokk bi pare nga ne defuñu won dara samedi samedi ci guddi nak mom lañ doon joxé résultat yi. ban riwaay ngeen doon jànge waaw dafa am ñuy jànge riwaayatu xafs. am ñuy jànge riwaayatu warsh. ñuy jànge riwaayatu qaaluun. yow ban ban riwaay nga doon jànge man riwaay bi ma doon jàngee riwaayatu xafs. waaw problème langage moom amul amul woon sax problème. ndax ay nit ñu dajaloo mokkal alquraanu karim dañuy mën a sax wax dañuy mën a sax bokk mën a waxtaan. problème mu langage moom kama àndaloon moom moom ma ci xawoon a tane ndax moom déggoon na arab man daal ma ci déggul woon arab moom ma doon jàppale lu ma xamul moom moo ma ci jàppale fi mu ne nii Sénégal moom mhm. Sénégal moom am nañ kii bu rëy boo xamante ne si moom duñu war a xeeb lu ne leneen la ñuy xeeb waaye duñu xeeb alquranu karim mhm. li ma leen di ñaax mooy ñu jàng alquranu karim te alquranu karim képp ku ko jàng ku ne secret am na ay secret yu bari nekk ci biir mhm. képp ku ko jàng ku ne lépp loo bëgg a man wan mën nga koo mën alquraanu karim daal ci la lépp ndam lu am solo li nga xam ne nii maam jaarangoom Ngom na ko ci dëkk bu tedd bi di Touba indil ko mbooleem muriti indil ko mbooleem julliti indil ko Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke jéggi na dayo lool mbëkkale ci mbooleem muriti rawatina nag ñi nga xam ne nii ñoo ŋànk communication bu rabita di kuréel gi nga xam ne nii moo lëkkale mbooleem daara yi ak jàngalekati alxuraan yi nekk ci senegal maam Diarra dafa ànd ak mbooleem soppe xarit dem ci ki nga xam ne nii moo di Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke mu teeru ko dalal ko ñaanal ko jox ko neexal yu am solo. soxna si yi nga xam ne. ñu ngi doon ci alxuraan. Hmm. ci àdduna ji moo ko moo ko yàlla def moom la ci loxoom. Hmm. muy ndam loo xam ne yow mi Serigne Touba yaa ko moom. Hmm. bi ci des mooy. dafa bari loo xam ne ci réew mi dañ koy def waxtu wuy ñëw àdduna sëpp daje fa ci aéroport teeru ko uh-huh. te lu ci yàlla gërëm amu ci uh-huh. léegi nag ginnaaw alxuraan sëñ Tuubaa ko moom uh-huh. way juróom mam jaar la tudd moom mi mu dikk jël ndam ci alxuraan moo tax ñu dikk yow mi sëñ Tuubaa jëbalaat la ko moo leen ndam li sëñ Tuubaa ko moom sa loxo la jaar kan nga ñaanal ko ñoo ña nga xam ni ña ngay ña ngay wuti ndam ca la nga xay amuñu ko nga xay adduna yittewoo Sëriñ Tuubaa yittewoo ko ci adduna te am po rek la ñu jël ko di ko yóbbu ci Sénégal foo xam ne euh, kawe na ci dayo bu mel ni am ni nga xam ne lii moo ko war a lii moo ko na am defaluñ ko ndokk bi ñëwee ci yow nga nangul leen ko mu tax mu sukk sa kanam li sëñ bi bindoon yàlla moom loo na ma mooy sama itte mooy samam koom tey soxna ko yàlla dogal nag Cheikh Sidi Maxtaar mii nag tey toog jotaayu Cheikhul Khadim di jëwriñ Serigne Touba mhm. muy seeral àddina bépp mhm. mbégte mi mu am tey mhm. musta am mbégte mu ko gën a kawe ci li nga xam ni moom la soxna jaar firndeel ni ko sëñ Baara euh, waxe kon mi ci sant bu baax di sant waajuram yi nga xam ni xeeta na ko doon ko jàngal ba mokkal alxuraan tey kon lii mooy firndeel ni kuy wax naan àddina dafa yàqu kilifteef amul royukaay amul xamu mm-hmm. fu àddina yàqu waaye du Touba mm-hmm. àddina yàqowu fi mm-hmm. ndax tey lay waa ngi nii kon nag yéen ñi nga xam ne yéen ay ahlul quran yor ay daal di ko jàngale ci dëkkub Serigne Touba bi ak ci biir Sénégal yëpp tey seen ndam feeñ na seen natiija feeñ na euh, sëñ bi nag mi leen sant di gën a wax rek ñu gën cee góorgóorlu ndax Touba lu muy rëy rëy lu moderne moderne moderne lu mu xumb xumb daara la du leneen daara la fu ñuy jàngale la fu ñu yare la fu ñuy xamle la dëkkub rawukaay la ñu ngi ñaan nag lii di lu tuuti ci ndami sëñ Tuubaa yi ngay làq yu baree baree bari ñu ngi sant bu baax ndax yëg nañu ne liggéey bii ñu nekkal sëriñ bi muy alxuraan ñu ngi ciy am ndam xam nañ ne mënuñu suñ moroomi jàngalekat yi suñu amee ndam yu ñu amut baaxuk sëriñ bee ak ndimbalam loolu xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi ciy sant bu baax nag di ñaan yàgg la fee fekk di la jébbal ndami alxuraan ñi nga xam ne nii seen yitte mooy leen rek liggéeyal Serigne Touba ci alxuraanul karim jot nañ ci ndigal ci Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke muy saytu lépp loo xamante ni moo di daara ak jàngalekaayu alxuraan ba mu méngoog ni ko Serigne tubaa bëgge woon ci dëkk bu tedd bii. daara yi ni mu toll ci dëkk bi ñu takk ko daara ju nekk ñu dem ba àgg xam lu mu toogee xam lu mu fa nekkee ñëpp ñu xamal leen li nga bëgg ko fa nekkee loolu jotoon nañ cee waxtaan ba ñëwoon fi waxtu wii ñu toll sax bu ñu ci amoon ndigal ngir mu mën a matale nga xam ne koo dem ci daaraam du ca teg baat bëggoon nañ koo yëgle ci sa tournée lii sëriñ bee ko digle loolu buñ ci amee ndigal bëgg nañ koo def ngir rek man laa saytul daara yi daara ju nekk ñu xam na mu tooge ku ku toogeen wa jekk ñu soññ ko ci sa tur ku laaj jubbanti ñu ne ko boo defoon nii mooy gën jëf ju am solo ji nag soññale ci mbooleem kuy jullit mbooleem kuy waajur tutànk yi nga xam ne ni ñu ngi soqe ci réew mii di Sénégal dem fa nga xam ne ni fi àdduna bépp doon jongante tari alxuraanul karim ñu jël raaya ji indi ko fii ci Sénégal ki nga xam ne nii mooy ñetteelu place bi di soxna di soxna maam jaara ak soññale ci mbooleem soxna yi rawatina waajur yi rawatina ñi nga xam ne ñoo di yaayi doom yi ñu gën leen a jàngal mën leen yar ci diine ba nga xam ne ni ëllëg lépp ñu bëgg ci société bi mu di yar ak teggin dana am waaye ab soññale cam ci kilifa yi nga xam ne ni ñoo ngànk mi raaya ji bu fekkan ne jeneen raaya la joo xamante ni amaana du diine fulla ji ak fayda gi ak taxaway bi dina gëna am solo lol hamnani dol ñi nga xamne ni nii dañoo gëm diine di liggéeyal islam ndaw ñi nga xamne ni am ay raaya ñu neexal leen defal leen lo xamanteni aduna bepp da ciy tek seen bët mu doon ab soññe ci mboolem képp ko xamanteni wajur nga wala nga di ab tu tank di jang alxuraanul karim di ñaanal serigne touba Cheikh Sidine mohtar yalla na fi yag lol te